album bi biñ koy dañ ko def euh, ci ñetti at lañ ko def ñetti at la ñu jëlal euh, ñu ngi ko de ñu ngi ko ñu ngi ñu ngi tëgg album bi diggante Ndakaaru euh, Congo ak ak France fa lañ defaree album bi donc mu nekk album boo xam ne daal nekk na lu am solo ci suñu carrière parce que dañoo dafa dafa tombé moment boo xam ne contexte bi ñu nekk. nekk na benn contexte bu xaw a bu xaw a yéeme euh, donc xam naa ni musique nag nekk na loo xam ne soxal na ndaw ñu bari donc amoon na solo ñu jël concept bu mel ni Yaama Télé nga xam ne dafa nekk benn euh, comme li ñuy wax rek robot la boo xam ne ci benn dessin animé bu daan am ci année 84 la suma ko fàttalikoo man jamono bu laa ko doon seetaan donc Yaama Télé nekk benn personnage boo xam ne euh, daf ñu yéemoon ñun. Euh, nekkoon robot bu amoon télévision ci biir bi donc robot la boo xam ne lu nekk la daan def donc daf ñu daan révélo donc tey jii mën nañu wax ne que même Yaama Télé boobu dafa traversé le temps euh, époque bi ñu toll nii euh, dañoo jàpp ne doom doomu aadama yi dañu dafa mel ni dañoo dafa am ñaari pàcc benn pàcc bi maanaam machine la beneen pàcc bi mooy wàllu wàll bi nga xam ne moo nite ci doomu aadama bi donc loolu dañ lañu la ñu tuddee album bi pour tënk concept bi waaye ci biir album bi am na ay morceaux yoo xam ne ci comme ni ko fa Fada waxee affaire mondialisation lay wax euh, am na yoo am na morceau bu mel ni ceekule nga xam ne li muy gën a wax mooy tamit euh, delloowaat ndaw ñi ci seen cosaan parce que euh, léeg-léeg modernité bi am dafa am doole ba nga xam ne hmm, cosaan bi dafay nax saay am na morceau yoo xam ne comme Saran Fou nga xam ne dañ ciy wax wàllum le pouvoir et l'argent doole bi mu am ak jeexital bi mu am ci surtout diri suñu suñu ay njiit nga xam ne dañu dem ba nga xam ne dañoo jiital alal fàtte askan wi euh, donc am na morceau yoo xam ne aussi dañ ko def diggante bi ñu demee Congo euh, am kii bu ñu taseloon artistes yu ñu tasel ñu def benn benn daje boo xam ne dafa mel ni danga jël ay rythme yu nekk Sénégal boole ko ak ñoom seen seen seen musique ak seen euh, maanaam seen seen culture noonu lañ defaree morceau bu mel ni Chaka Zulu donc rek pour tënk rek euh, ñu bañ a xam naa jël temps bi trop euh, xam naa ni am na suñu mbokk yoo xam ne jot nañ ko déglu mais album bi am na fukki fukki euh, fukki titre ak ñaar la am donc vraiment def nañ ko daal ak suñu ak yéene bu mat sëkk am na ci ay guddi yoo xam ne sax <laughs> dañ doon wax naan album bi est-ce est-ce que sax dana génn bis parce que yàggoon na trop ñu nekk ci daal même at atu 2019 yëpp. ñu ngi doon nekk di liggéey ci contrat yeeg et cetera mais artistiquement li ñu bëggoon vraiment def nañ ko parce que genre mix la entre album bi ñu defoon xalima ak boomerang quoi c'est un des deux mais je pense que ça a pour man ci album yi gën a abouti euh, suñu album bi gën a abouti la quoi ci ci at bi ñu nekk 2020 donc mu nekk album boo xam ne aussi bëgg nañ ndaw ñi. Euh, bu ñu ko dégloo ñu xam ne que suñu musique aussi am na war na mën a am li ñuy wax cachet boppam parce que c'est vrai mën nañ copier américains yi mën nañu roy ci nigériens yeeg yooyu mais am nañ fii loo xam ne rythme yoo xam ne am nañ fi ay euh, mélodie yoo xam ne war na mën a représenter bu baax a baax suñu suñu culture urbaine ko ñu ngi leen di jaajëfal.